comité de pilotage regroupement des opérateurs Touba jël initiative ngir ñaari amphithéâtre jëmee ko ci liggéeyu iniversité Cheikh Ahmadou Bamba Pape Diop bu marché ocas bu Touba bokk ci boobule comité di àddu ci kàddoom di ñu xamal. jëlee ndigal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général des Mourides. pour initier ñaari amphithéâtre fii ci université bi nga xamante ni si moom la ñuy defaral maam Khadimou Moustapha amphithéâtre yi dañuy wax ni dañuy defar fii ñaari enfie amphi bu ci nekk dafay nekk 500 places en fi bu ne coût de manœuvre bi dañ koo estimé woon ci quatre cent millions kon ñaari dafay mel ni dafay nekk huit cent millions ci engagement boobu ci lañ nekkoon di ci dox di ci liggéey ba tey ji ñu ëkk ci pose première pierre. démarrage effectif des travaux defe moom mooy nekk li nga xamante ni si moom moo ciy topp parce que comme pose def nañ pose première pierre bi. am nañ entreprise boo xamante ni muy Afribat déggoo nañ ak moom ci modalité de travaux yi kon donc dafa naan li ci des mooy ñu ko dem ci liggéey bi durée bi nga xamante ni moom lañ ko appal ak liggéey ak suñu conseiller technique yeeg ak entrepreneur beeg ingénieur bi yëpp wax une durée Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké di porte-parole xalif général de Mourides teewe woon boobule jotaay di yëkkati ay kàddoom ngir rafetlu li commerçant yi def commerçant yi nga xam ne ñëw nañ fii di leen soññ di leen sant ndax rasulullahi dafa waxoon ne aljaar xabla daar bala ngaa tànn fi ngay dëkk dangay seet ñi ngay dëkkal kon yéen itam yéen am taw féexi suñ boroom tànnal leen ngeen dëkk ak Sëriñ Tuubaa bi yaxantoo fii ci dëkk bi bu ngeen wëlbatikoo nag sant yàlla sant Sëriñ Tuubaa ci taw féex ji nga xam ne defal na leen ko ba tax bi Cheikh Mouhamadou muntaxa Mbacké yëkkatee liggéey bu rëy bii nga xam ne ku fi dikk danga nga gën sëriñ yéemaa ngir xam ne Serigne Touba mbiram waxtu wu nekk kanam rek lay jëm. daal nay fàttaliku bi ñuy liggéey jumaay Touba ci jamono yu yàgg ak sëriñ Modou Moustapha. ku fàttaliku ci waaye juróom yu tàddee tàmbalee ci Cheikh Modou Moustapha ba muy yëkkati raay bi di ko indi Touba ngir bëgg taxaw jumaay Touba ñi ëpp ci nit ñi dañ ko doon wax ne ko. teen koo wàññi ndax jamono neexul ndax dañoo nekk ci kiris tàmbalee ko ci Cheikh Ibrahima Fati sax laay tàmbalee Serigne Saliou daana ko nett lu bare bëri bi ko Serigne Touba santee karub gi ci ma Manaan ne ko defar ma ko sàkkiti weñ ak nam ko nam bëgge woon mu mel ni am ñu ñëw ne ko dangaa war a wax ak sëriñ bi mu soppil la ndigal li ndax fii jamono toll da nit ñi amatuñ dara ndax dañoo nekk ci kiris bu ñaareel ba itam bu fekkante ne dajale nga li nga ko war a defee sax matériel amatu ci réew mi ndax seng ñëwatut pont ñëwatut ndax booba ci guerre bi lañ nekk kon jàpp naa ne waxal ak sëriñ bi Cheikh Ibrahima Faty ca pëstéef ba ak dogu wa ne leen néew ma xaw ma sëriñ Tuubaa néew ma xaw seng dafay yéen itam xamu leen sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa du santaane mukk lu dul am te duma sant mukk lu ma du def yàlla def na ba liggéey ba àggee Sëriñ Saliou nee na lu ca rek ay tono ci des mooy pont yi ak seng yi ak lépp kon liggéey Sëriñ Tuubaa noonu la demee Cheikh Mahamadou Moustapha bi muy tàmbali jumaa ji ñu bari dañ koy wax naan ko wàññi leen ko wàññi ko waaye boobu xamoon na fi mu jëm xam na Sëriñ Tuubaa xam na fi jëm Sëriñ Bassirou Abdou Khadre Mbacké sëriñ Ahmadou Badiou Mbacké sëriñ Abdou Lahad Gaynde Fatma maire Touba di Abdou Lahad Ka ak commerçant yi si njiitu lu bàyyi Diop ñoom ñëpp teewe woon boobule jotaay si ndigalu sëriñ Mountakha ngir taxawal ñaari amphi jëme ko ci liggéeyu université Cheikh Ahmadou Bamba tey nekkoon tegu xeer ba ca Madiyaana